jàmm ila Touba moom la yéen kaay yu bari xëyete njiitu réew mi Macky Sall ma nga ca Touba Mbacké démb la diisoog eh, xalif général des Mourides Walf Quotidien eh, jot na faamal amal tàggatu ndax xamal na xalif bi ne eh, déwén incha allah keneen moo fa fas yéene dem ca Touba Mbacké ci turu njiitu réewum Sénégal njiitu réew Macky ne jeexal na ci bopp réew mi la mu diggee woon def na ko atum 2024 du ca mun a dagaan baatu askan wi Walf Quotidien ci kàddoom yooyu le xalif général des Mourides jot na ko ca jaajëfal discours bu daw yaram moom la amal démb ca Touba Mbacké moom jiitu réew mi Macky Sall discours euh, tàggatoo lay doon ndax xamal na xalif bi ne euh, ëllëg ak jàmm maanaam déwén ci màggalu 2024 euh, keneen moo fas yéene yóbbu délégation nguur gi foofee ca Touba Mbacké waaye nag du doon moom moom jiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet ca Touba Mbacké googule ak dalal gañ ko fa dalal l'observateur xuus na ca yéen cabinet di las ne adieu bokk na ci kaddu tàggatoo goo xamante ne xalif général des Mourides daanaka taataan na ko démb ca njiitu réew mi euh, Macky Sall mi xamal xalif bi ne tàggoo na ci boppu réew mi euh, xamal ko itamit ne bëgg na ëllëg ka koy wutu ci boppu réew mi bu mu war mukk euh, Sénégal njiitu réew Macky Sall moo ni waxee Serigne Mountakha Bassirou mbakke jot na rafetlu ay kàddoom ñaanal na ko mu ngi ci yéen kabi di las yéen kabi di Le Quotidien njiitu réew mi Macky Sall ca Touba Mbacké cant ak tàggatoo lafa amal bokk na ci wax ne bu fekkee ne itamit doonatul président caatum 2024 la ko dese ci nguur nguuram dina fexe ba euh, taxaw askan wi euh, ngir sàmm seen kaaraange ak seen moomeel euh, seriñ Bass Abdou Khadir Mbacké wax na ci googu lépp ngan jot na naa ay kaddu ci turu xalif bi ñaanal nañu njiitu réew mi Macky Sall yéen kaabi di Sud Quotidien lu aju ci tolluwaay réew mi jur na waxtaan gu yaatu ca Touba Mbacké njiitu réew Macky Sall sas na kilifa diine yi rawatina xalif général des Mourides ñu fexe ba ñaanal réew mi réewum Sénégal am jàmm waaye nag njiitu réew Macky ne la dese ci bopp réew mi yelleefu doomi aadama bokk na ci euh, fexe ba askan wi ne ci kaaraange gu sëkk ak seen i moomeel euh, bokk na ci euh, kaddu tàggato yoo xamante ne jot na ko yëkkati ca Touba Mbacké yéen a kii di le peuple quotidien génnagul Touba njiitu réew Macky Sall ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nganam googe ca Touba xamal na xalif bi ne kay wutu ka koy wutu ëllëg incha allah ci boppu réew mi nañ jàpp ne kooke moo fas yéene dem ci turu gouvernement bi ak ci turu nguur gi foofee ca Touba niki màggalu 2024 euh, ndax dootul doon euh, candidat ci élection présidentielle yu 2024 njiitu réew Macky Sall moo ni waxee euh, xamal itamit ne ka koy wutu ëllëg ci bopp réew mi ngelawaay bu mu wor Sénégal bokk na ci ne dina taxaw réew mi lu ko desee ci mandam ci wàllu sàmm li nga xamante ne mooy moomeelu askan wi ak seen kaaraange njiitu mi Macky Sall kaddu yam mu yëkkati bokk na ci la mu jot investir ca Touba Mbacké jot nañ ko fa waxtaane yéen a kaabi di turbine ci jamono joo xamante ne njiitu réew Macky Sall ma jamono jooje Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ma nga fa woon jot naa diisoo xalif général des Mourides sàkku na ay ñaan ngir xalif bi mun koo ñaanal mu mun a gagné ci élection présidentielle yu 2024 Bougane Gueye Dany ne am na ay ñaan yu bawoo ci mun tax jëm ci moom bu ñu sukkandikoo ci l'évidence moom njiital gëm sa bopp yéen kaabi di l'évidence xëy duñu dégtal société civile ña ngay dox tànk jàmm la leen yitteel mooy ñañu duppee ay détenus politique ñi nga xam dañoo wone seen pété wala wax lu waxuwul ci wàllu politique Euh, teg leen loxo ñooñee nañ leen may afiya ñu euh, génn euh, kaso bokk na ci càkkuteefu société civile waaye mel na ni pastef dañ ko tànqamlu ne ànduñ ci benn yoon nañu bàyyi ñëpp ñu génn ci kaso bi warta am tànneef gannaaw bi nga xamante ne société civile sàkku na ci Guy Marius Sagna ak Fatima Mbeng ngir ñu tànn lu toll ci téeméeri détenu politique ñu mun leen a libéré gum ñu am afiya loole nag la pastef ne duñ ko jëfee ay ñooñu Ousmane Sonko euh, fa ñu tegoon seen tànk teggiwuñ ko yéen caabi yor yor gi xëy duñu dégtal rëbës ñafab euh, caabi féete ginnaaw doon ay détenu politique ak ñeneen ak ñeneen seen waajur jafe ñuy dund ngir mun a diisoog ñoom mun a euh, mun leen a gis moom la yéen caabi di yor yor gi xëyee yéen kaabidi di Walf Quotidien bu xëyee mun naa dem ca Touba Mbacké jël yoonu Touba ila Touba moom Cheikh Bara Ndiaye mi am afia demb am na baay bu négandiku génne nañ ko ci kaso bi gannaaw ay weer foofu foofee ca euh, kaso gi ba noonee muy amal xiifalu ñaxtu lottoon lool ba ne woon ci lalu hôpital moom Cheikh Bara Ndiaye mujjee na ñibbi këram démb yéen kaa bi di réew mi quotidien kii di Mouhamadou euh, du mujjee ñibbi këram ndax euh, keneen la ko xamante ne jot nañ ko teg loxo ci mbirum immigration clandestine am ñoo xamante ne def leen a nax njuuy leen ñeenti doomu Sénégal yu bëggoon a dem ca Angleterre waaja mujjee leen nax ba mujjee leen gaareloo ca Ghana gañu ne te jotuñoo yegg ca Angleterre la mu njuuj ci ñoom ci ci fukki million ak juróom yéen a bi di stade xëy di ñu dégtal liste ga xaar te mu war a tukkee ci Aliou Cissé mi tàggat équipe nationale Sénégal Algérie match goge li ci des bareetul ba tax na gaynde ya cay football dañ ci gindeeku mu ngi ci yenn a di stade yéen a di suñu lamb mu ngi ñu dégtal Gambie ak audience gañu ne kay tëgg combat Ama Balde Modou Lo Tapha promoteur ba dina jàkkaarloo ko Adama Baro waxtaan war a dox ci ñoom ci super daje goo xamante ne eh, dañ ko fa amal eh, foofee nga xamante ne mooy ca eh, Gambie ngir waajal saison gi ñu jëm yéen kaabi di l'observateur xëye lu doy waar jaaykatu mayga moo fat xaritam ci lo loo xamante ne daanaka jaru ko paaka la jël dal di ko rendi xatet xaaju di la def loole ca wetu maygam foofee ca Kolda